da ngay déemaa nga dof jaar bu ma duggee ci salle bi ba fekk ndaw si toog sama karaw bu bopp beeg sama yaram bi daan dandoo ni say jaar may loxo liw nag ci saa si waaye yaay yaay nan nga nekkee naan itam ba toogoo léttu yow ban xel moo yow kat ban yàllaa la day loolu yow man damay dof yaay de bis bu la yàlla nattu woon nga manquant kunkan karankan ba toog kooku di létt xam nu muy def ciseau hmm. lay jël dagg sa karaw gi yóbbu ko yaay dina ko laq ba mu ñuul boole ko lu ko saf def ko ci ndox gis nga ndox mi di demee noonu ngay demee dangay ngay ko ma jom mi nag ndax yow laa am baaxuloo moom nag yow yaay dangaa bëri soo <laughs> caat damaa xuloo xuloo xuloo xuloo xuloo ba mel ni Facebook bi xam nga wax rek la ñuy def ko am say wax fu nga koy dugal loolu laa ba tey dama ni tekk tekk wan ma yoon patt nag des fois ciy baax yaay yenn patt may parce que nag tamit tekk tontu la parce mu mel ni kuy jël sarax nii gisati gisati nanu yorin la la nijaay la seen kon moom ma xam ne bi yàqu ma Tidiane moom dañ ma yàgg naa ko xool tey déggal du mooy mu du kuy borom maag yéen ci kër gi dina mel na geeru yamba foo leen wëlbati ko ma biw leen dinaa leen expresso ku wex di leen ko consommé loo par A ou par B ndax bon ma bon yaa ngi may rey rey la maman yaa bon te sew te mees te ñuul xool waruma yow nit nga kii da war a considéré comme sa yaay bi la jur. sama yaay Diallo Dieng xam nga ni melul nii kon ci yow la fekk baax lu muy lay def lu ne nga koy nangu li ngay ñàkk fay man du man du yow. kontaan na lol wax deug yalla ci set bi ndax mënon na la nga tankam luma ma ya fa téewoon de ndax man sa yuñ tuddé rek damay dem deug la waaye no tuddu ba paré ma do faral sax di déglu way lu bari waaye ba nga né der man di dimay di son mo bon musique ki ni ma koy dégloo ba ni der sa voix nangou ngay joxe normal ci la xamni international nga ah lolou moom bekk na di ma sha allah yow ya, ñàkk ki ñaan way da nga mën yow jibi da nga bax ndax yow li ngay def sax beurul ni koy def ndax amna na ñoo xam ne apprécier mais yow da ngay apprécier ko ku ki ñaan mën ko yow i iñaanoo soxoroo barka yonent bi yow foo ma woo ma ñëw gis na kër gi bu ma fekkoon fee gaynde mu boof dama koy jéggi ñëw fe wuy si la ndax alal sax boolewu ma ak yow mais cofeel gi nga am ci man ma am ko ci yow muy bëggu jàmm ak salaam kese nag man daf maa jaral lu nekk ci àdduna ñàkkul ni su ko demee dëkk ba waaw ba am fa ay fan ba bay ngéntewaat du ñàkk yaakaay waay moo jaañ ah. kii lu muy def sama kër. waykat la de. Hmm. kii fifi naa présenté dama ko barki démb hmm. ni ma day létt moo jël numéro bi ci facebook bi indil ma ko pour mu létt ma. tey nga wanaat ma ko. Hmm. ni ma waykat la. kii lu muy def sama kër. boo ci bëgg. laa ci bëgg. boo ci bëgg bii laa ci bëgg. goro bu lëj le te mën a yëddu dóor ko kuur. njëkkee lu lakkale. mën a nettali yéen ko muul goro bu lëj le toggal sa marmitu gom ba mu tax sutti ko ko kii ba ay moo jaay léegi ko doon yokkul eh, lu bees a bees ah. lu bees a bees loolu lu mu lu bees moo jaay lu bees a bees moo loolu lu mu mais ku doon yokkul ah moo jaay jël ko da nga cee bokkul ñëwal ba nga ko bokk kenn boolewul sa xol xasal sa xol fii di xasal ah fii fii di xasal ah sa fii di xasan. ah fii fii di xasan. sa di xasan. di xasan. sa bul def la. mën ngaa dem parce que xam naa jikkoom. Hmm. mu ni mi ngi ñëw xaaral la wax. man damay dem ba mënul jóg sax ma jóg ndax ndaanaan laa yaa ma rek ma ñëw. xol bu bon bu bon ngi de. bu la daw ma la rek dem. <laughs> bu su ma waxee nga wax. dangaa ñàkk fayda may wax nga yenu sa tungu ne indil ma ci biir kër gi sa plaqué cent mille mun a foon a bàyyi Anta doxaan nga Anta Seck Anta Seck bañ tey nga indil ma kuus ko ndorong man dama leen a compter muy dotti dotti naan ma kenn baax ba xasan waroon ngeen maa kon danaa ko wokk ba dootul xasan. man nga sonn way tayuma man nga fi fek so bëggee mel ne man wala nga bëgg def lu mel ne man da ngay indi jek triple jeeg man duma ma moyenne triple la jeeg bu taxaw ci balance am di peser sama bop xam li ma doon sonnagoo tàyyeegoo sonu ma tayuma ma damm ma jaaxlew ma fii laa naan riig di len xaar nu da ngeen ko man man mi mako man da ngeen di jem muy ndrok tungu ni te dotti dotti ci sama kanam di mel ne felu nawet ki nga may jëndel li ngay ñàkk <laughs> jom ta bon Tinggal. tingal maa kasan deh. ma aku lagi. man ngeen di wakal. So nulen daulen. Tuh waaye tayu maran rumah. ma suba daal ku ñu bëgg gis xaañu riir banaa suba dafa kau yow wadd bii yow yooru bii yow yërndu bii yow du la wan nii faran yow dangaa mën a yóbbu sa bopp pikin dangaa fàtte juuti tëngéej bi saa yoo fay dem nañ lay omat yaaraw gumba dama ni la lii xasab wakkat <laughs> mana man jeeg bi nee naa leen dawuma daayuma randuma saal bi sama saala gaaruwaale yi jeex